abonné leen ci suñu YouTube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci réew. fii ak ay fan yu néew moom njiital Pastef Ousmane Sonko. am ab jàkkaarloo ak juge bi jëm si digganteem ak ndaw sii di Adji Raby Sarr laata loolu mu war a jàkkaarloo ak kii di Mame Mbaye Niang si lu jëm si seen procès en appel bi ñuy amal moom Ousmane Sonko si jàkkaarloo bi mu amaloon démb ak taskatu xabaar yi muy xamle ni àndul benn yoon si verdict bi nga xam ni juge bi daal na di ko joxe mu dem sax bay xamle tamit ni 200 millions yi nga xam ni dañ ko ko daan fas yéene wu ko joxe askan wi taxaw di si joxe seen gis-gis. en tout cas daal li ñuy ñaan ci réew mi rek na nekk lépp lu ñuy def na nekk jàmm waaw parce que réew mi Sénégal ñun ñoo ko bokk donc muy Ousmane Sonko muy Macky sàll ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te yaakaar naa li leen tax a jug benn la pour defar réew mi. donc maa ngi ko ni nga ko ni nga ma ko waxee noonu noonu laa ko déggee cette seetaanee ci journal yi ñuy wax ay ma tentation d'assassinat affaire yooyu man nag loolu xaw ma ci lu bari quoi waaw mais daal li ma mën a xam daal mooy nañu bàyyi démocratie sax ci dëkk bi élection yaa ngi ñëw ku war a bokk bokk. ñu bàyyi sénégalais yi ñoom ñoo yor seen choix ñu xool ki leen doy ci réew mi ñu jiite ko. kon naa ne maam maam may ñaa du laal fukki dërëm parce que nit kii aussi topp ko ni que yow chaque fois da koy empêcher pour mu bañ a nekk candidat l'histoire de Adji Sarr lépp lu ñu xam ne moo doon preuve yëpp mi ngi mi ngi ci mbedd bi ñëpp xam nañ ko Sonko man li may conseil na a dem day am raison seen kaw ñi mënuñu ko juger ba tëj ko. déjà li juge bi joxe woon ma maa xam maa xam li mu joxe neexul dingi nit ki boo koy toppee faux usage de faux de document écrit day fekk nit ki indi document bi tribunal xamul lu lu preuve te preuve kenn présenté wu ko fa te maam maam Mbaye Niang ba mu porté Ousmane Ousmane Sonko plainte en tant que citoyen ordinaire la ko porté plainte ça dire que ni moom dommage intérêt kese la mën a am mënu nekk amande du état bi mooy toppee Ousmane Sonko diffamation su ko bi la day am amende amende boobu da nga koy fay au trésor aujourd'hui tey Mame Mbaye li muy laaj deux cent mille deux cent millions yooyu li lay waa ji wax ni du laal fukki dërëm mooy du laal du laal dara donc waa ji il sait très bien ce qu'il ce qu'il attend xam na li xew te xam na fi mu jëm te quel soit alpha mën ko condamner ci ñaar yëpp kenn mënu si condamner benn le poste d'appel moom on le met à côté du abouti à rien l'essentiel important mooy l'état mu ngi ci kaw waa ji parce que xam na ni ne ah tey waa ji bu jëlee nguur bi ah lépp li nga xam ni tey réew mi ko moomoon daan ko indiwaat teg ko ci yoon moo tax neexul nag de neexul parce que nit ki nekk pendant des années ñu ñu am deux doctrines muy doctrine socialiste doctrine libérale donc yooyu tey bu bu nax saay beneen doctrine mooy ñëw beneen Sénégal bu bees mooy am xëy loolu arrangé wul gars yi arrangé wul de moo tax gars yi tout le moyen mooy ñu fexe mën ko écarter mais fi toll nii moom c'est trop tard waaw Sonko ca kaw ca kanam rek. war a jàkkaarloo ak Adji Sarr le 8 jàkkaarloo tamit ak kii ji Mame Mbaye Niang le 16 bi ñu jëm Ousmane Sonko nag askanu senegal ñu si bëri di naan na dem wuy ji ñi jàpp ni dafa war a wuy ji comme tout sénégalais ñeneen ñi di naan daa war a wuy ji ndaxte du yàgg mukk ba ñu am dëgg ci kawam. na dem wuy ji na dem wuy ji loolu mooy yoon personne n'est au-dessus de la loi. Sonko keneen ak keneen a ci yam fii dëkku yoon la na dem wuy ji comme dañu yoon dafa dañ ko convoqué ci yoon na dem wuy ji yaa ngi may dégg setal boppam parce que lii moom moo ci mën a setal boppam du dëgg parce que sénégalais yi tamit bon duñ jël n'importe kii ñu leen di jiite ah non dafa dem war a wuy ji justice loolu mooy yoon parce que justice amul kii amul kaa képp ku ñu woo ci justice da nga war a dem wuy justis justice man loolu laa koy conseillé mu dem wuy ji justice setal boppam bu fekkee dafa bëgg a jiite Sénégal ëllëg waaw parce que tamit problème yi ba muy dem foofu di indi ay problème affaire yooyu sénégalais yi a ah nañu waxante dëgg Sonko ba muy dem si beauté nangam nangam kenn yëgul ah moom moo fa demal boppam kenn yóbbu ko fa man du ma bokkuma ci ñi na wax naan naan li complot la man bokkuma ci loolu jamonoy confinement la woon ñëpp ñu ni toog leen seen kër te dégg naa ñaari soxna la yor mu bàyyi ñaari soxnaam dem ni day maase wu donc kon na jël ay responsabilité dem gere boppam fajal setal boppam loolu mooy yoon quoi man laa woon ci lu ma wax ci loolu quoi man à l'instant man man vraiment leer na ma ni Adji Sarr mënu fa am dara bu defoon créer ay vidéo créer ay preuves mënu ci am salaamaaleykum parce que les preuves tangibles ah mooy les premiers ah, les gens ñu jëkk déglu ñu joxe seen ay preuves mu leer nañ aj daal day day àggale yéeneem rek bu ames mu ni état bi ni ames ce dossier là on l'a vidé donc li moo ci am li li kese la te Sonko moom sincèrement ah, na leen wuy ji nañu xool mënuñu am ndam ci dossier boobu ça je vous le dis madame. lu jëm si wàllum tentative d'assassinat bi mu feddaliwaat si ay kàddoom sénégalais yu si bari di xamle ni dañu ko war a bàyyi si ay yoxo yoon mu daal di def liggéeyam. mais loolu naka ah, daa jaaxal gars yi de loolu mu wax noonu te li mu wax na leer na nee na la bu leen bëggee ngeen dem ngeen defee contre expertise lépp nga fa dem leen jël ko ci laboratoire ba ma nga ma nga daan daan lieu sûr état bu bëggee na dem. xool est-ce que li Sonko wax am na wala amul waaye ku taxaw wax loolu publiquement kooku moom am na ay preuve yu loolu moom moom leer na ma nañ Sonko moom euh, je te di que ni nit la boo xam ne vraiment il s'est préparé il a enduré mais ku nekk ci coono yàlla fay la te incha yàlla dañ ko fay waaw ñooñu ci gannaawam te ñun ay ay mag lañu amuñu taawu sànni xeer amuñu taawu def dara ñu la ñuy xaar rek mooy bis ba jot. billaay di ko xale yi waxee midi ñun huit ñu mag ñu ñu jeexal carte bi maa la ko wax. loolu moom wax dëgg yàlla li ma ci xam bariwul loolu nañ ko bàyyi ba tey ci loxo justice parce que justice moo tranché te magistrat yi dañ fi nekk nekk luñ fi Ousmane Sonko nekk luñ fi Mame Mbaye Niang Sénégalais yëpp lañ fi nekkal parce que Ousmane Sonko day dafiy dafiy jógee bàyyi fi justice bi Mame Mbaye Niang dafiy jógee bàyyi fi justice bi justice bi justice Sénégal la magistrat yi dañu indépendant nekk luñ pour kenn waaw <laughs> man am naa dama xam naa ci lu bari quoi parce que mais magistrat yi daal nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey te képp ku yoon dal sa kaw ñu xam ni kii yoon dal na si kaw am na ci loo xam te nag affaire politique la man duma ci àgg parce que nee naa la je suis pas politique quoi c'est ça.